xam nga ku bëgg kooku boo ko santee mu bëgg la ku bëgg yàlla boo santee yàlla mu bëgg la kii xaar ñu beral ko cantuk boppam bëggul yàlla waaye sa borom bii la bind defal la xiiwal nga gis ku kontaan ci xiiwal ga sant ko doyoon na la bu fekkee yàllaa tax Sëriñ Tuubaa de ku bëgg yàlla rek bëgg na la ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi bëgg na la muhiba kulli muslimin wa muslima nee na adresse weesuwul ku dib julit bu góor bu jigéen bëgg naa la du fa nekkee détaillé bëgg naa diw bëgg naa diw bëgg naa diw ndax xam naa ni sunu borom subhaanahu wa taala muy ki bind jaam yi liggéeyal ko mooy liggéeyal jaam yi liggéey ci biir jaam yi ndaxte alxalqu iyaalullah alxalqu iyaalullah ki gën ci nit ñi mooy ki gëm a defaral nit ñi moo tax dundam gépp mooy mu nekk njariñul jaam yi sëñ Tuubaa ñaan na bay ñaan lori jaam yi yàlla bu ñu ma dal waaye sama lor yàlla bu mu leen dal xoolal googu wàccee boppam googu yëg yàlla kenn ku ci nekk ci nun boo ko laajee ki fi gën boppam lay wax day jàpp ni moo fi gën te yàlla tere woon nanu ko kat tere woon nanu lool kuy woote woo ci askan walla muy woote woo ci jikko wala muy woote woo ci xam-xam defal lépp te yàlla tax boo ko defee rek kii la war a bëgg dina la bëgg te doomu aadama nag mu ngi doon waajoo xam ne am na lu luñ ko bindaale lu baaxul mooy loo bëggal sa bopp ñu bañal la ko loolu moom fa la a nekk loo xëccal sa bopp lànk nañu li ñuy bëgg-bëgg gaay yi saa boo yëkkatee sa bopp wane na yaa nekk ci kaw ñépp yàlla xam na ni ba nañu la amoon na fi jàmbaar ju fi jóge bu yàggul rek Mawlana Cheikh Abdoulaye Al Ahad dem leen ngeen xoolaat band yi bu daan wax ci màggal ba jàkkaarloog autorité yi day wax ñaari baat ya wax jëmale ci ñoom daan ngeen may ma tuuti nag ma wax ak sama bokki taalibe yi gi nga saa bu ko masaa wax boo ko xoolee même jëmm ji dina war a ngi ko <laughs> même jëmm ji dana ko soppi toogin wi rek da ngay gis ni bàyyi na leen bu yàgg ay bokkam lay waxal ñan ñoo di ay bokkam ay taalibe bokki taalibe yi sama bokki taalibe yi ba mu ko waxee rek kenn diglootul taalibe boo romb ci mbedd mi moo tax rajo boo mas a romb ci marché buñ nee Cheikh Abdoulaye tey wax ñëpp naan dégg kenn du yëngutu ndax dal cee boole <laughs> moo ni may leen ma waaw sama bokki taalibe yi kon kay ab taalibe day taxaw diglu ba xam kii lu mu koy wax booba da doon jàngale rek da doon jàngale ni sëriñ bi mooy sëriñ bi nun ñi ci des ñëpp ci rang bi la nekk rang bi nag dina am ñu jege ak ñu sori waaye rang bi ñëpp a bokku tur daraja yaa ngi ci kemtalaay yi ni gën a soree waaye saa boo ko wooteelee sa bopp gaa bala fa ñoom dañoo bëgg sëriñ bi doon ko jàngale jamono bu nekk li ñu am ci sëriñ bi ñimewuñ koo tudd sëriñ bi lañ ci amoon ñimewuñ koo tudd Seex Fallu waxoon na ko bi'tubuna watiya bil irada lakum li kay ossa bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni aadaytuha lakum bi xayri manni faltaqbaluha ya malasu karama la siltumu bayna albaraya alama sëriñ Touba ñi ngi wax ni yaway sama bàyyi maay sa doom jaay naa la ko bëggatuma koo dégg jënde ko nekkub taalibe boobu sëñ bi laa doon wax ni sama mbokki taalibe yi mu ni loolu laa bëgg a dégg bu ma la ko jaayee ba moom sama njëg joxaat naa la ko addiya ba mu koy firi maa ngi déggal sama bopp mu firi wa mu ni kayit woo bindal sëriñ bi ni ko dama la ko jaay jënde ko taalibe bëggumaa doon sax taalibe buy seex bëgguma seex li yi xëccoo nga xam ne kenn ku ne yaa ngi koy keree kenn ku ne yaa ngi wutu ceex bu jaree dem Casamance wutik ndomba sax di ko def bu jaree dem Guinée Bissau di nga ko def Sëriñ Fallou noonu moo bëggul xam nga ni kon amul njariñ bu amoon njariñ mu bëgg te nee na sëriñ bi lu muy joxe danañ ko bari le maag sama mag ji Cheikh Moustapha ñu ni ko lu tax mu ni lu ko waay defal defal nan ko ko defal nañ ko sax saala yaayi mbaar bayal nañ ko sunuy loxo bindkati kaamil yee bokk nañ ca bay joxe yee bokk nañ ca addi yee joxe nañ ca bokk nañ ca kon kuy ciiru bàyyi leen mën da nekk kookee nag moo wax wax ji mbokk mi su meekul liggéey sëriñ bi te xam ni moo am njariñ moo am njariñ kat liggéey sëriñ bi it mooy li mu bëgg ci diine nga def ko loo mën a def ba ñu ne allahu akbar waccal te dem ca la loo mën a def bu ubbi téere quraan bi waccal bul def leneen fii la sëriñ bi nekkoon njabootuk sëriñ bi fii la nekkoon fàtteegunu ko xaw ma ko war a tatone waaye du ñi fi làq ñeen fukki at waroo tatone ndax gisoon nga gaaya gaaya ba nga leen gisee fa ñu nekkoon foofay yoon wa ku jàdd da ngay jàdd rek waaye yoon wa moom fekkoon ngeen ci gaaya gisoon ngeen ko kon nag yal yàlla teg ca yoon woowee te dimbali nu ba nu xam seen bëgg-bëgg te di ca def la nga xam ne nii moom moo leen doon gërëm loo démb te di gërëm loo itam tey nu nekk ca te sëriñ bi dara du ko doon ngërëmam lu weesu li mu digle nga def ko li mu tere nga bàyyi ko li mu nu digal mooy ngooy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngooy ci téereb yàlla bii bëgg gaa yu baax yëpp lii leenu sëriñ bi digal leneen lu la waaye wax moo ko keryeel boppam bàyyi ko moom comme du fay comme mënta fay bu la keryeelee dara demal demal kat te dawal te xam ne dalay nax ki dul naxe soxlaa lu dul dara dara dara bis bu nekk danuy favoriser rek joxe addiya joxe nangam ak nangam wallahi loolu du mbir mi sëriñ bi loolu tax ko war a jóg de yéen a wax ni sax amuloon poos yéen a wax ne loo ko mas a jox mu la tegal fee boo ko joxee alxuraan mu jóge ñaari loxo yi xam nga ni kon loolu la fonk li ci des moom il faut nu fonk ko ndax dañ koy jariñoo doomu aadama moom li muy jariñoo faaw mu fonk ko léegi danoo bëgg a dund kon faaw nu def li nuy tax a dund waaye nag li nuy tax a dund ëllëg foofu la nu sëriñ bi wowoon te feekat at ye daa bari te sëriñ bi noona de liggéeyal yàlla àddina de ko liggéeyal kam talaayu li nga fiy toog àllaaxira nga liggéeyal ko kemtalaay la nga fay toog xam nga loolu lu muy tekki mooy dépense bi nga ber ngir àllaaxira seetal ni doy na fa dépense bi nga bàyyil àddina seetal ba xam doy na ci waaye foo xam ne nun ñi ñépp jumaa ji boo leen recensé woon ñu toogaat fi ñeent fukki at li ciy des am mbaar dina ko mën a yóbbu xam ko xoolal lii ni mu gàtte lii jar na kër kër feenu jëm ñu di def ay milliards at te yóbbuwoo fa lu la dundal benn bis sëriñ bi nee na du xellu de sëriñ bi nee na loolu du muuste de li dégg muuste mooy yóbbu lu baree bari fereet lu baree bari te fii nga bàyyi ko xel ni amul solo fii amul solo amul solo de te sëriñ bi xamal na ni nu amul solo ñii mu bàyyi woon xamal nañu ni amul solo doyo dal ko lool woyofal seen bopp lool barki démb lay fàttaliku benn xissa boo xam ne sëriñ Xaasim Mbàkke radiyallahu taala anhu moo ma ko nettali nee na danoo toog man maa ngi toog far maa ngi sëñ kër Gueye ak moom koor la nuy dog soxnaam indil ko gerte gu ñu boxam ba mu rafet lool fekk da ko lakk loo pour ñu dog ci mu teg palaat bi mu ni ko dellool sëñ kër Gueye ni ko déet teg fi nun koy lii bëgg nañ ko mu ni ko demal lakkal ma gaalu gerte gaal wañ daan lakk ca àll ba mu ànd ak dóom ba mu indi ko muy jote par benn loxo yi taqrib mu ni lii dama am soppe boo xam ni moom la nu mujj a tiim mooy sëriñ Fallu nee na li nu mujj a tiim jëfandikoo maag sëriñ Fallu lu mel nii la woon kerata nee na ku dëkk Ndakaaru bokk na ca